أسير تمشي عبد الخادم أسير مستعد تمشي عبد Thank you. этой войны дальше человек цивилизации уже не выживал, все Руси Thank you.

Jesus ordained for the good thing to them. Nor, nor, nor, nor räcker det med fallet. Nor räcker det inte sig gentemot dem. Nor räcker det inte. Det är sant. Det var som du har rätt om det. Nor räcker det. Nor räcker det. Det är så inte. Räcker det inte till någon. soo bu nekk nekk ci yoon moo waral baat bi dana leen ñi mu leen yore te xam ne mbokk yi nga nekk nekk nekkal leen fi wuuf ci taxawaay bi waaye ñoom xam nañ ne ko jot ñun xam nañ ne ñoo ñu ngi tax ñu ñaan suñu borom gën leen a sàmm te gën leen a bàyyi

ndax tey bi ñu ko jëlee ak delloo bi dañ leen mën a def bëgg

daje nañu fekk waaye xam nañ ne xamul sa biir xam nañ ne loo loo loolu ko bopp xam nañ am xam nañ ne xam nañ ne am nañ yéene ji am nañ ko seen ndax yaakaar yaakaar ko rek te xam nañ ne ñu yaakaar soxla si loolu loolu la loolu la yaakaar soxla si kon nag bu la président yam yamalee nga demee ñu ne demee ci kër gi booy laaj ñoom ñi nga ànd ak ñoom ñëw loolu

Anne kendi kurucunu mu? Hukukken girdi. Ömer'e sınırlarla ilgili, Ömer'e ilgili. دايما ونحمل ونهددك بالدولة ونشوف هذا نفوت ميت بدون دولة كما نأتي مثلا سورة سورة في جعل الشيء يكفي يكفي dégg suñu yàlla rek loolu yaakaar naa laay suñu suñu àdduna ko ba mën ko jëriñoo ba dama indi ci nga xam ne wala njëriñ la nekk wala tax a nga nekk wala mën la nekk wala xéewal la nekk àjjana sax ñi xam yàlla dëgg dafa leen a jël moom ngir ma yàlla ñu ne ci rajo kon nag xas bu sa suñ bopp baax lu mu naqari ci àdduna loo ko def suñ bopp àdduna lu mu ci naqari rek loo ko def suñ bopp dañ leen ci xam dafa mooy sax fekkoon ne jàmm dafa amoon jàmm fekkoon ne jàmm nga amoon dañoo daj bu dëkk am na yàqute bu nekk ci ci ko suñu biir ñoo xam ne moo gën a bon ay jëm moo ëpp ay five number में one direction who is lip one dummy what what हमें वही फायदा लेंगे what हमें या हजीरी हमने नहीं जरूर देख सुना हुआ है तो क्या दो मालूम दो मालूम तो वरना संबंध imminent xam ne loolu yëpp bénéfice boobu rek la dama ko dimbali rek waaye li nga xamante ni moom jëm ci moom moom góorgóorlu bu baax gën a góorgóorlu si yoon teg soo dugg mun na am solo mun na am njëriñ mun ko gisaat rek. ko nekk si loo xam ne moom la gërëm lii ma daw loo xam ne moom la bañ loolu moom yàlla alxaar nañu fi jigéen yeeg nee yaa fi ñëpp kenn ku ne loo sàggan sàggan ak boo ne la ñu la dara bokk nekkoon sàggan bi itam lépp suñu borom noppi na ci ku bëgg a xam mën xam ba mu di 今天是六。 tamit mën nañoo nekk ci lu ko neex mën na daw la ko nag tamit ku ci sax dàq su moom muy liggéey rek tere bi fii nga koy tàmbalee yëgal sa bopp boo tegee ci yoon waxuma la ëllëg gën ci dëkk nga xam ne fa la ñëpp nekk am na sax waxtaan wu su su su rab yi di negeri pengen orang macam negeri ya kan semua lepaskan kita kalau bukan yang kita nak kan kalau itu pun akan sulit kalau kita cari yang mana yang ada bersungguh-sungguh ci ñun déedéet buñ ko tàggee buñ ko caaxaane ku xamul da ngay laaj wala nga dem bànni ndax nga am jàmm ba mu yàgg yàgg rek nga gën a ci bopp loolu amul loolu ci loolu loolu loolu loolu loolu amul solo amul solo te du yàggul ah waaw waaye ñu jégalu waaye ñu am nañ laa wax bu ngeen ko yéene rek bu ngeen yéene sama bopp rek laa yéene ndax balaa yéen ñii toog yéen a toog waa ñii toog ak yéen ñii ci nekkal réew mi dama leen ko yéene rek waaye ñu nekk ñu ngi ko rek loolu góorgóorlu waaye mën naa nekk لما نك ودين نجد تقولي ودين نتعلم ما يبدون ودين ودين نتعلم وين ما هم لا بد القبول منك بمشاوي بمشاوي تفلم بينك أتفلم فحلمي واجب أنا قلت بتجلس من كل عمل الإسلام تصدي واجب أنا قلت عقل ما نوم هذا بين منك نقضي مدير لك والله قد يعمل كان مثلهم ملك من ملك من منزل من الناس من منزل من الناس من منزل من الناس سواء معين الناس من لك من ما يدري من ما يدري من الله يا الله ما أدري وعلى بنا وعلى بنا وأنا شاعر بنقول أنا كمان جالس بنقول أنا كمان عندي بنقول بنقول بنقول بنقول بنقول kon dañoo war a dañoo war a xamee loolu di ko sant di ko jaamu xam nga gerte xam seen si dëkk si dëkk bii xanaa ñu ñu daal di wut yàlla ñu xam naa lu jàmm moom la jàmm dañu ko jëm di ko suñu wàllu da koo jëm kat xam naa am solo la ñu jëm ci benn yow тоже. А почему? С нами победа. Нахрен мы seen li ñu yaakaar wala seen biir suñu kaw ndax soo yi ñu yaakaar loolu yow lañ ko pour ñu jéem a dañ leen am waaye suñu biir suñu kaw kon man xam sëriñ bi kan nga sëriñ bi waaye sëriñ bi mën ko xam xam xam xam mooy xam leen rek bu ñu liggéey xam mu benn bu ñu jéem a xam yàlla rek bu ñu jéem a xam yàlla rek bu ñu ko xamee rek 何でだお前。 loola yéen ñëpp da ngeen ko dégg man dooguñu ci nit loolu jik man dooguñu ci xam si nit ñi fonk ko loolu góorgóorlu ci taal bi man ci la teel mën a mën a xam seen tubaab ci lu mu dara man dooguñu ci nit man dooguñu ci fonk suñu diine man dooguñu fonk suñu taal bi loolu jëf jëf la ci tudd te nit bi liñ ci def yëpp yàlla ba yàlla tax ko def loolu ci yooyu خلق سماوات والارض mënu ñu ñaan diri ak ñaan sax waxal xéy dara ñu lool nous nous après moi c'est le numéro qui s'est bien non fille n'a pas de monnaie que la femme et de nous pas bien amené premier ministre qui n'a pas de monnaie qui est délégation bi euh on non qui a fait moi euh on a fait une appelation li nga xamne mo ngi sakku ci euh euh moy mu am ñaan sëriñ bi ñaan ba nga xam ne Sénégal jàmm dina fa am Sénégal dina am lépp li nga xam ne moom moo nekk développement sàkku na jàmm ji ndax nee nga xam ne mooy fi sëriñ bi am muy Mali gis nañ fi ne am na ay ay coow fa am am yi daal ci seen kaw loolu nag ngir mu am ci Sénégal il faut que nit ñi mu ngi ñaan ñi waaye nag xam ne tamit bu wax na ko moom mooy ci développement bi xam nga dañu ko junj fii Porokhane gis nañ ne nguur gi war na fay dugalal loxoom loolu waral moom mu nee am na programme spécial boo xam ne président de la république ñaan na leen ko mu jëm lu jëm ci wàllu courant lu jëm ci xam ne daal mën naa suqali dëkk bi ba euh, nga xam ne moom mooy na euh, plan spécial ne amal fii ci dëkk bi dañu am seen ñi danañ ci taxaw suñ ci taxawee jëppal euh, nga xam ne ñoom la ko war a jëjjë lépp lu dëkk bi ñu amal ko ci bu sàkku ñaan nag comme ni ñu ko waxee wax nga yi tamit daayira bi nga xam ne moom la nekkee